déjà waaw Babacar am na solo loolu xam nga tey bu nekkee da nga am une culture des du sport nga yàgg hmm. seetaan sport gis bitim réew nuñ koy pratiquer ak gis nuñ koy yéggalee niveau hmm. da ngay xam ne léegi sport nekkatul tàggat yaram kese hmm. mais dafa nekk léegi entertainment moy dafa dépassé cadre tagat yaram. Mhm. dafa nek léegi sport dafa nek industrie nek business bo xamanteni bu extraordinaire la. Mhm. et malheureusement fi Sénégal joxuñ ko valeur buñ ñu ko war a jox. Mhm. gis nga li di li mel ni làmb. amul lu ni mel fu mu toll ci Afrique de l'Ouest du wax nak Afrique nak Afrique dafa yaatu te maîtriser wuñu Afrique yépp dans l'ensemble. mais doole bi lamb am. amul lu amul lu am doole boobu ci Afrique de l'Ouest ci wàllum tàggat yaram lu am capacité de mobilisation ci nombre de personnes bu muy mobiliser ak ci ñi muy impliqué yëpp mhm. yaakaar naa ne loolu dafa rëy mhm. donc ci lañu ne bon làmb itam gis nañu malheureusement euh, communication bi ñu ci war a def dafa bari làmb du rek ñaari mbër yaa ngay ligatoo ñu ngi xeex mhm. mbër baa ngay tuus cosaan baak aada baak tàggat yaram bi am na lu xamante ne yeneen la ay valeur ajoutée yu ñu war a jëli Euh, Lutte TV. Mhm. Euh, war a toxu. Mhm. war dem ci ay studio yu bes mhm. wara lancer vraiment projet bu bes ci vraiment lo xamantene révolution la am yaakaar ni mom lay doon. ci walum audiovisuel. buñu amé projet bobu non nak tok xalaat ne lan la wara war def mu nekk ben genre inauguration. bo xamantene inauguration bu am solo lay doon bo xamantene vraiment ku ko di nga mhm. donc ci la toogee xalaat ma ne nañ créer les prix. am nomination parce que lool manque ngi koy xalaat depuis des années. Mhm. mais créer ay nomination ay prix yoo meilleur lutteur meilleur espoir. meilleur euh, meilleur lutteur lutte sans frappe. Mhm. lutte sans frappe bi nag day yaatu du nekk mbappat yi fii kese. mais day mhm. dem même à l' international. Mhm. gars yi dem vraiment compétition des jeux ak yu mel noonu. ak lutte gréco-romaine lutte libre ak yeneen xeetu lutte yëpp. xalaat dañ ko beach wrestling beeg yooyu yëpp. xalaat def meilleur tous. xalaat def meilleur itam li nga xamante ne moom mooy euh, euh, meilleur meilleur combat. ah kii ko gagné. mais aussi xalaat aussi def même meilleur promoteur. parce que promoteur itam c' est très important mhm. tey ci li nga xamante ni moom mooy làmb kon yooyu yëpp ko xalaat mhm. mais léegi toujours ñu koy commencé togg ku interpellé nga ne ma mais seen inauguration la ngeen bëgg a def mais ne non am na lu ñu préparé c'est mhm. dans ce cadre là ma koy wax mais toujours comme li ñu wax rek mooy Euh, nit da am ay signe da nga am ay indice yu lay wane li nga nekk baax na ma am benn mm-hmm. live bu ma def ak Dave Lamb Diaspora mm-hmm. fekk waxtaanoon naa ak sama équipe ba pare ci projet bi Dave jékki-jékki ci biir live bi mu def le bilan de la saison laaj ma le meilleur lutteur laaj ma leneen laaj ma leneen mu mel nii li ñu wax li ñu nasoon yëpp moom da ko génnee da ko génnee ma ne nag montre yu baax yëpp bokk heure mm-hmm. parce que li ñu xalaatoon bu baaxul woon Dave du ñu ko posé te yëgoowuñu Dave posé ma question boobu noonu ma ne nag xoolal voilà li ma doon wax moom amaana bu nekkoon man maa ngi maa ngi deux moom yóbbu na ma dix. parce que léeg-léeg nga am ay projet mais doo ko concrétiser. Mm-hmm. mais vraiment dafa ma yee ci côté boobu. Mm-hmm. wan ma ni que loolu macha allah. posé na ma question mais léegi warul yem ci question. Mm-hmm. ñu dalal Abou Ndour mu wax meilleur lu non na nga ko def benn. événement. ànd mhm. check ay sponsor ci lañ toogee xalat ñu né bon on a un sponsor comme Eric Favre. Mhm. xamante ni il a une gamme de produits yoo mbëri dañ ko soxla. yow mhm. boko ko ci plateau mbëri rek lay wo may ma ci may ma ci may ma ci wala defal ma ci bëgg fu muy jaay ak yooyu. kon tay won nañ mën jël le meilleur lutteur defal ko toute une gamme de produits toute une gamme d'équipement ñu ñoo ko ko pour ses entraînements pour aussi sa consommation yu mel noonu. Mm. jël les tous les meilleurs lutteurs meilleurs lutteurs meilleurs espoirs meilleurs lutteurs lutte traditionnelle. Mm. meilleurs combats nous ñëpp ñu jox des gammes de produits. Mm. ak suñu sponsors yi. du ma du bëgg continuer lim sax mais am des ay sponsors de boissons. Eh, jox leen comme jox leen ku nous ni As Ndaw Nukuman. xamante ne mu ngi lamb bu baax baax. si sa plateau la man fi ma toog yaa ko moom. Euh, As <laughs> Ndaw Nukuman As Ndaw Nukuman. fii loo fi bëgg wax ko fi fi Babacar ay dirigé fii <laughs> te man yaay sama kilifa. Euh, na leer ñep direct la euh, koy wax. ñëpp deg dégg dëgg la boo ne ma tegal micro bi tey. ma micro bi instant non nekk. Hmm. kon tey ñooñu itam war nañ ñëw. Hmm. Euh, Éric Favre war na ñëw ci émission bi. waaw ba tey. produit Meta Power def fi responsable. bu ko neexee waaw Asnaw Nukuman. bàyyi naa ko dafa war a xam ni original. waaw Babacar itam ci làmb la bokk. ah waaw Père Asnaw. a ñëw fii. Hmm. loolu yaa koy dox pour ñuy waxtaan di naan. di naan dafa jaadu de waaw Père Père. waaw fii tamit. Babacar xattar bi. waaw xattar bi. na ci Eric na ci na ci na ci boisson bi ñëw nu mu tudd. original original bi ci war a ñëw. ak beneen ba ak beneen ba kaapay tamit. kaapay dafa war a ñëw dem ba ka. dafa war a ñëw ndax ñooñu. Ah ñu la ñu fas yéene àndal. waaw lu TV awards bi. waaw mm-hmm. ak Cheikh boisson Cobra ak Cheikh bi nga xamante ne. mooy dàq jàpp. seex borom ginaar yi ginaar poulet du pays. waaw seex poulet du pays moom itam neen ni la jël ravitaillement. jébal ko ñu ñu nar a nommé ñooñu ñëpp. kon day.